nuyu mboole mbokki jullit yi di nuyu sëñ Amsa Mbàkke mi nga xam ne moom lañ ñëw ci këram di mboole mboolem njabootu Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke gépp suñ tànk yi nag tànk feddi kóllëre rek la ak jokk bokk ci li nga xam ne moom lañ bokk muy e, sëñ Tuubaa di nuyu sëñ mosaam mi nga xam ne moom lañ fekk di leen nuyu di nuyu mboolem mbokk yi ñu fi dajal sëñ xabaan léegi la fi jógee ñu ngi nuyu mboolem mbokk yi fi teew yépp ñun ñëpp li ñu fi indi lenn la mooy liñ bokk rek muy sëriñ bi sëriñ Abdul Ahad Mbàkke doon koo xam ne moom mi nga xam ne moom lañuy fàttaliku ci bis bi doon koo xam ne ku dëgëraloon lool la ndax ku ne gis na ni ñi bokkaloon sëriñ Tuubaa ni mu leen def ku ci ne yaa ko gën a doon boppam waaw ci lu wér kum ci yëg ni yaa ngi ñëw këram mom mom yëg na ne boo doonul ci kër ga dar man la ko yalla bindé won mu doonoon koo xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek ko ñoroon ne jëfi seigne bi rek moko kon suñ tank yi barkeelu ci loolu la barkeelu ci bisam bi la barkeelu ci mbég mi ci seigne touba amon ci bañ ba mi gëné a yoy moñu fi andi yalla yalla ko yalla fayal Euh, yàlla dimbali ñu it bañ bis bi fàttali gañ koy fàttali ko ñu nit ñu roy ci ba nga xam ne noonu nga xam ne mooy sifaat yooyu ma doon wax ci moom yàlla ak sëñ Tuubaa dimbali ñu bañ bañ mën caa jële dara waaw ndax lu ci waaye jàng rek da nga ci mën a jële dara ci bëggante ak soppante yàlla na ko yàlla defal ci daraje sëñ Tuubaa ak darajaam moom mi nga xam ne moom la ñuy fàttali ko wa kullu haamin wa antum si am sa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax te di la sant bu baax tey rafetlu sab taxawaay bu baax a baax a baax a baax ci ci ci biir bokk gi tey gën a dëgëral suñ diggante bu baax a baax waaw jërë ngeen jëf asalaamaaleykum a rahmatulah. jaama balsasin la feeñ fa njëriñ nee nañ keroog bi wax des koo yéem na keroog diine ji ak lislaam ji dëgg nañu mbég mu rëy rëy ci gan